waaw ñoo ngi ci box numéro 57 bergerie Diabel Touré waaw ñu ngi nii taxaw ak très grand champion ñu koy wax Ndiogou Touré ñu bàyyi ko mu nuyoog téléspectateur Ladoum TV gannaaw boo nuyoo ba pare nag Ndiogou nga wax ñu sa première impression ci fila bi naka nga ko gisee ak organisation salaamaaleykum euh, mbokk téléspectateurs yi maa ngi leen di di leen jaar di nuyu waa Ladoum TV bu baax a baax di nuyu monde élevage waa sama impression ci fila bi euh, comme nuñ koy waxee toujours rek euh, structure privée la waaw te c'est une première quoi pour pour pour monde élevage waa te ni mu débuté moom yaakaar naa euh, baaxagum na quoi baaxagum na waaw comme que lépp lépp matagul nag mais. Euh, dafa nekk affaire bu bees waaw foog mu am yenn faay mais nu nu ma ko gisee moom par rapport ak yeneen foire yi euh, yaakaar naa bala muy muy kii dina dina dina dina dina gën a baax quoi waaw pour man. téléspectateur Ladoum TV yéen ko déggandoo une première fois ñu organiser lu mu metti metti wala lu mu gàtt gàtt dina am ay quelques failles ñoo ko déggandoo muy kàddu euh, njóogu tey ji njóogu bi nga dugg see si foire bi nga gis niveau xar yi. xar yi fan la ñu toll seen niveau niveau bi fan la xar yi toll. Euh, niveau xar yi moom macha allah moom macha allah gars yi ñu ngi liggéey bu baax a baax a baax ñu ngi liggéey bu baax a baax ndax euh, léeg-léeg euh, da ngay dox nii rek box bi doo xam sax bergerie bi jéeg-jéegi rek gis benn xar yëndu nga affaire bi impressionné la xar boo xam ne da lay jaaxal moo lay wanal ne gars yi ñu ngi liggéey comme bu njëkk nu nga doon wëree si yenn bergerie yi pour gis fa yenn xar yi léegi xar yi ñu ngi fépp. xar yee ngi fépp euh, macha allah daal waaw éleveurs ay jàmbaar dëgg lañ. macha allah loolu am na solo éleveurs yi ay jàmbaar lañu muy kàddu njóogu tey ji njóogu waa fila bi yëpp doon xaar benn maal bu ñuy wax oncle benn ñu ñëw fii à ma grande surprise fekk ko fii ñu fekk fi tey nga indi fi un très grand champion encore nga présenté ñu kii nga wax ñu nag lan moo tax maal boobu ñu doon xaar gisaguñ ko. waa oncle benn moom yaakaar naa ñëpp a nga ko doon xaar ah, dem ba léegi gars yi ma koy laaj quoi waaw mais dafa xawoon euh, jagadi tuuti rek waaw te yaakaar naa foire moom da ngay indi boo indi da ngay indi xar boo xam ne dafay wér waaw règlement foire sax loolu moo si nekk quoi boo indi ngay indi xar bu wér nekk en bonne santé waaw te yaakaar naa moom euh, des naa nekk si état waaw mi ngi feex nag bu baax naka gars yi ñaanal rek waaw buy ñëwaat incha allah mooy dàq quoi. waaw yalmin lañ indi ah, ak quelque doom ak euh, taawu oncle Ben waaw ak euh, ñaari doomu rayaan quoi waaw. waa téléspectateur Ladoum TV yéen a ko déggandoo kon euh, oncle Ben ñëwul mais yóbbante na ñu gis si mu ñu exposé bi tamit yalmin mu nekk benn maal bu doy waar bu extraordinaire mu ànd ak ay doomam waaw ñu bàyyi ñu nga présenté ñu yalmin nag présenté ñu doomu oncle Ben yi ndax gars yi yàkkamti nañu gis oncle Ben gannaaw ba ñëwul yóbbante na. waaw waaw euh, ñëw ñëwul mais yóbbante eh, indi na taawam euh, muy benn femelle bu am mois waaw ak euh, box bi ñu dendal doomam moo fi nekk muy jeune mâle bi ndukumaan waaw moo ko yaayam tam yaay ndukumaan tam ñëw na doom rayaan la waaw moom moom loolu rek day na xel am na yeneen box yu nekk si kanam tamit am na ñaari doom yu fa nekk tamit waaw mooy wane ne élevage partage la quoi waaw am na ñetti doomu oncle benn ñu ñëw mais représenté wuñu bergerie Diabel Touré yeneen bergerie la ñu représenté waaw. ah téléspectateur Ladoum TV yéen a ko déggandoo onkul Ben ñëwul mais yónnee na tubaar fa kàll li ñuy wax tamit élevage partage onkul Ben ay doomam ñi ngi fi mais ci yeneen bergerie la nekk tubaar fa kàll loolu am na solo yàlla na yàlla barkeel ñu bàyyi la njóogu nag nga présenté ñu maal bi wax ñu fan la bokk. waa kii mooy Yelmine euh, Yelmine euh, nekk doomu trésor trésor. Euh, nekk doomu Aïcha Omer Séeréer waaw mi ngi woon eh, Galoya Galoya la daanoo sax eh, yaayu yalmin nekk doomu Saalum Saalum waaw ah, nekk rak si ñoom eh, Picasso waaw ah, muy Aline Sitoé moom Mauritanie la ko lig jaayoon quoi waaw ah, moom mooy taawu Aline Sitoé yel min yel instant yi am na ay trois ans et demi waaw mu ngi am trois ans et demi yooyu waaw téléspectateur Ladoum TV yéen a ko déggandoo kooku mooy yal Yalmine waaw nga présenté ñu nag euh, doomu oncle benn bi nga xamante ni si moom la ñëpp yàkkamtee gis nga wax ñu nag mi ngi toll si ñaata weer ak tamit kan ak moo ko composé oncle benn ak kan la ñu boole. waa doomu oncle Ben bi euh, mi ngi toll si 14 mois mooy taawam moom yaayam doomu Saalum Saalum la dañ jëndoon benn doomu Saalum Saalum bu boo xam ne euh, doomu Jupiter moo ko jur ak Saalum Saalum doomu Jupiter boobu. Euh, Boussa Bali yaay ñoom préfet bu muy ñëw si lig dafa tëb woon si Jupiter mu jur famel femelle boobu lañ teg si Saalum mu jur femelle femelle bi ñu teg ko si oncle benn mu jur taawu oncle Mirabel Mirabel euh, mooy bi doomu Yelmin la euh, yaay Mirabel nekk sët si Rayaan dañ jël benn doomu Rayaan bu jigéen jox ko benn doomu Karbala bu góor sowrum ñu jur femelle femelle boobu lañ jox Yelmin mu jur culul bi waaw. Euh, mi ngi toll si deux ans net septembre passé la am deux ans waaw septembre passé. waaw nga présenté ñu tamit euh, beneen doomu oncle Ben bi nga xamante ni si moo nekk si beneen box bi nga wax ñu moom tamit mu ngi toll si ñaata weer ak tamit kan ak kan lañu la ñu jox kan lañ jox oncle Ben ba kooku. waa mooy ndukumaan bu bàcc ndaw waa BSK moom euh, mélodie lañ jox oncle Ben. Mélodie euh, doomu rayaan la yaayu Mélodie nekk euh, benn sëtu sëtu macha allah Papi Dieye jël jox ko beneen doomu Assane mu jur yaayu Mélodie Mélodie dafa am ñaari yoon Assane 2 si bi ak si maamam maamam tamit doomu Assane la fixe la quoi léegi moom lañ jël jox ko onkul benn mu jur ndukumaan ak seexam mais seexu ndukumaan ñëwul mi ngi beneen bergerie tamit ah téléspectateur Ladoum TV yéen a ko déggandoo loolu mooy élevage partage xar bu ñu juddule mu nekk ay seex dinañ téye benn libéré benn Ndiogou ngeen fàttali ñu bergerie fan la nekk ak euh, seen numéro téléphone. waaw bi mi ngi nekk euh, Parcelles Assainies unité 19 euh, numéro téléphone bi 77 631 68 68 waaw mooy numéro bergerie bi beneen numéro bi 77 531 19 15. Euh, beneen numéro bi nekk 77 631 68 68 waaw mooy adresse adresse bi moom boo ñëwee ba unité 19 si ginnaaw CM 19 bi rek ak bergerie bi ñoo jaaxaaraloo koñ ñoom Papa Sow